suñu jaar jaar daal dañu nekkee ndaw mu nekk kuréel gu am solo ànd taxaw mbokk taalibe yi tawal. képp ku ci bëgg a barkeelu tamit mën nga jël si numéro SOS 77 729 60 ci turu maam Cheikh Ibrahima Diouf. ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa xadimihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi diin anta rahimu samadu rahmanu almuminul muhayminul manaanu ikfil balaa wa jumlatal wabaa'i wa sux ilal ahdaay kula daay anta rahimu samadu rahmanu almuminul muhayminul manaanu ikfil balaa wa jumlatal wabaa'i wa sux ilal ahdaay kula daay antara himu sama durahmanu al muminul al muhaimin mananu ikfi bala wa jumlat al wabai wa sukh ila al ahdai kul kon bokki ni ngi wax assalamu alaykum di len nuyu te di len siare di tambale suñuy kaddu ci ñaanal serigne muntaha mbacke basir mi nga xamne moy khalifa serigne touba di xalif général des yàlla yàggal ko lool te wéral ko ñaanal it Cheikh Moussa di sëriñ Alaaji Keba Cissé yàlla ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko te mottali yéeneem ci barke waajuram sëriñam Cheikhuna Cheikh Moussa Cissé njàmme daaw di ñaanal bu baax ni ko sëñ seet waxee suñ mbokk yi nga xam ne yalla dafa dogal dembu ci yoon wi wax deug yalla accident sen bakkan rot ca yalla na yalla suñu borom gëreem leen ndax bis mi ñu jublu won fasiyene ko and ak ñun far yalla jël sen bakkan yalla def liko neex alhamdullilah bi nga xamé ne Cheikh Moussa lim joxe képp ku ko yegg diko dundu da ngay ne yalla deful te lum def da gën su boba nak nanguga day daal di jàppandal lool waaye ñu ngi koy jaale képp koo xam ne taalibe Cheikh Moussa la te di leen ñaanal yàlla su ko defee ñuy barkeelu ci kàddu yu gàtt rek ndax li muy ndigal la te ndigal moom jëfee rek yàlla na yàlla leeral xel mi leeral làmmiñ wi ba lépp lu luñ fi wax cee rek mu dëppog lu mu gërëm te bisub siyaare la te Cheikh Moussa daraan wax ne siyaara du ziyaara waaye ziyaada la képp ku siyaare ku mata a siyaare ba fa bàyyi ko da ca jëlee ndollal te ziyaare ku yëgut du ko def yëg-yëg rek te lii Cheikh Moussa tàllal képp ku ko yëg dana la jural ak cant sa diggante ak sa borom te cant googu leen bis bii da koy jëmmal waaye mooy liñ sax képp ku yëg yàlla képp ku gindeeku ci yàlla am nga tawféex joo xam ne sag sant yàlla dafay dolleeku sa diiru dund waaye sañatoo mu wàññeeku ndax yàlla ñu bind mënal ñoo def leneen lu dul nit te kenn du ca mën dara mu boole ñu ci bani aadam def ñu nit gannaaw bi mu ñu defee nit mu def ñu ay jullit loolu doy na sant yàlla jullit ñi boo leen gëstu woon di nga gis ne niñ déggee lislaam di ko ni dundee wuute am na ci ci ngay dem ba tubaab yi di nga dégg ñu naan islamophobie maanaam dañoo ragal lislaam ci xeeti xalaat yoo xam ne dangay gis koo xam ne sañ naa takk bomb léegi dugg ci biir mbooloo faagaagal ci lu bari ndax mënta accepter yéeféer loolu di nga gis ñuko déggé sen seen ba dañuy jam l'islam ba baatu terrorisme nga koy dégg nga xamné bu ñëw terrorisme rek walu tiit lay junju ak bo soloon yére yu wéx ne allahu akbar duggu ci bir mbolom tubab dañuy japp ne ki jël sen bakana ko tax a jóg te baat bi li wundu moy jam jo xamné ne koy yéne sa bop yéne ko sa morom aduna ak te déggin wo xamné ne dese naa mel ni képp ko jur motax l'islam am ci kilifa gu mat kilifa gu la ci yar tàggat dafay am solo lool parce que mooy tax na ko yonti ay salaatu jàngale woon nga mën ko ni dundee looloo tax a jóg yi te nit duwul jëmmi kese jëmm ji li fekk mi ngi yëngu rek dafa am loo xam ne moo nekk ca biir di sabab jëmm ji yëngu loolu mooy ruuxu doomu aadama nit ñi nag tàmm nañoo faj seen yaram ci bu tawatee tam nañu dundal seen yaram ci bu xiifee tam nañu rag seen yaram ci bu tilimee waaye ci yaram wi kep lañ koy yemale daal di fàtte ruug yi su boba feebar la koy jural feebar gim koy jural ak tumuranke gim koy jural fay jéxitalat ci yaram wi jéxitalat ci sa mbolém jëflanté moo tasawuf kep ku ko dundul la nga xam mom lay feeñal ci biti ci xeeti jëf ci xeeti kaddu mbon mbon ya nga xam mo tak ci bir faaw mu mooy tax nga mën a wax lu waxawut mooy tax nga mën a jëf lu jëfuwut moo tax ni ngay wutee docteur boo xam ne boo yëgee ci sa yaram tawat ngir mu saafara la noonu la la waree sa diggante ak sa borom ci sa wàllu ruuxu moo tax nga dégg sëñ la ne mu cheikhul murabbi yu rabbi ruux wa yarxa ilallah fala budda min doxuli janna sëriñ su ma tee sëriñ ruuxu lay yar parce que lu tax ruuxu mooy jàppee ci loxo mooy doxee ci tànk mooy xoolee ci bët mooy déggee ci nopp waaye ruugi bu woon piccet génn dégg amatul gis amatul dox amatul parce que yooyee bu ko jëmm mënee moo fa ne boo koy misaal dafa mel ni yére bi nga sol rek yére bi boo ko solee bu tànk bi yëngoo mu yëngu bu loxo bi yëngoo mu yëngu waaye ndax yére bee yëngu yënguwut di yaram wi lay topp rek su ko defee noonu yére mel ci yaram noonu la yaram mel ci nit te neexut a xàmmee moo tax Cheikh Moussa kum noppi ci yow di nga xàmmee yaram ak ki nga xam ne mooy nit kum noppi ci yow dinga nga xàmmee lan mooy dëggi dëggi lislaam ak niñ ko jaawaleeg sharia tey koo ne lislaam lim lay wax rek daanaka dafa dab lislaam parce que lislaam yàgg na fi lool yonent bi woote ko diir bu yàgg te julli amul woor amul azaka amul ajmaka amul te yii jàpp nañ ne mooy lislaam te yii ponk yi la ponk yi lim ponk nag looloy lislaam dëgg-dëgg te am na ay sahaaba yoo xam ne dund lañ lislaam ba am ngërëmal yàlla te yii ñëwagul nga am kilifa goo xam ne bu la yaree yéegee la ca ngay dem ba xam ne nii laa war a dundee sama lislaam te dëppoog nu ko suñ borom gërëmee moo tax kilifa gu mat kilifa mënta ñàkk Cheikh Moussa lii la leeral Cheikh Moussa lii moo nekkoon liggéeyam dégg nga sang bi Cheikh Moussa di ko leeral ay yoon ci ñetti xeeti sëriñ yi ñetti xeeti sëriñ yi benn bi mooy bi la yàlla tànnal te mooy ndey ak bàyyi amul kenn koo xam ne yaa ko tànn coobare suñ borom la ñoo jiitu ci yow ca nga juddu ñu toppatoo la te buñ la sàgganee woon bari na loo man te doo ko man gàtt fan sax ngay def ñooy sëriñ bi jiitu li nga njëkk a xam ñoo la ko njëkk a xamal sëriñ ba ca topp ñoom ndey ak baay ñoo la koy wutal mooy sëriñu daara moo la jàngal alxuraan jàngal la sunna xam-xamu fiq boo ca bëggee teg naxwu wala aruut wala bayaan ci xeeti xam-xam yi nga xam ne ci téere lañ koy fekk tam lay dimbali ci sa diine loolu ndey ak baay ñoo lay sàkkal sëriñ ba la koy xamal waaye boo demee ba màgg nag xàmme alxuraan mën a julli mën a woor mën a asaka mën a aj màkka wëlbatiku nag ne dangay wut sëriñ ci tariqa yow yaa war a laaj sa bopp nag loo koy doyee wala Cheikh Moussa lim le dafa leer sëriñ bi nga jaayanteel ci tariqa bi nga xam ne ni ko gëmee moo gën a jéggi dayoo foofu ni nga gëmee sëriñ bala jàngal alxuraan xanaa kon war naa def ci yow lu gën alxuraan te li gën alxuraan lu muy doon nga sax ki wax ci alxuraan rek ki ñu indi ay kàddoom ci alxuraan mooy suñ borom jàng alxuraan nag taxut a xam yàlla dana la ko jegeel dana la ko jegeel ndax yaa ngi jàng ay kàddoom waaye di nga jàng ci alxuraan loo xam ne bu dee gindeeku ci yàlla amul dana la leer na lii nga jàng xamoo ko yëgu ko yàlla wax na ci alxuraan ne wa nahnu aqrabu ilayhi min war warid ñun yàlla ñoo leen gën a jege seen buumu xol ki la gën a jege sa buumu xol te boo xoolee doo ko gis boo làmbee doo ko daj boo dégloo doo ko dégg war ngaa xam ne jàngoroo la gaar li nga jàng wér na waaye yow yëgugoo ko lana la war nag seeti koo xam ne moo lay tarbiya tàggat la ba nga gindeeku ci yàlla ba nga xam ne lépp loo jàng ci alxuraan mën koo yëg parce que loo ci jàng lu wér la ma yakuna min najwa salasati illa huwa rabihum wala khamsa illa huwa sadisuhum wala adna min zarik wala akthar illa huwa ma'ahum wa huwa ma'akum ayna ma kuntum fu ngeen nek ma ngi fa ak yeen gëna fo nek sa borom mang fa ak yow te mëno ko yek mëno ko gis war nga xamne jangoro la gar da ngay faral di wax ne jangoro mën gar nit ba nga xamne ñam wu neex boko ko joxe mu nakara ci mom du ñam wé nakari dedet waye mom la jangoro gar ba nga xamne la ñu safatu dara léegi nag bu la jàngoro gaaree ba ñam wi safatul dara ci yow yow yaa feebar yow waaye ñu wér buñ ko jëfandikoo yëg la nga xam ne moom moo nekk ci bànneex ci ñam wa loolu rek la di am na koo xam ne julli juróom daa diis gann ci moom xalaatu ko sax am koo xam ne woor weeru koor ngir jëm yàlla dafa diis gann ci moom xalaatu ko sax saraxeeg won ginnaaw ngissal won ginnaaw rëy am na ñoo xam ne mënuñ ca dara parce que jàngoro leen gaar te hôpital ba ñuy fajee jàngoro yooyu xamuñu ko waajuñ sax ngir dem fa li ci gën a doy waar it mooy ka nga yaakaaree ne sax moo la ci war a saafara léeg-léeg moo lay gën a bóof ca jàngoro yooya ki bëgg ku ko faj ci rëy bu àkk jee ku ko gën a rëy ndax dana dana wér ki bëgg a saafarawu ci bëgg àddina bu demee ci ki ko war a saafara ci jàngoro jooju leen kooku gën koo bëgg àdduna far ki bëgg alal bëgg alal gu jéggi dayoo ba nga xam ne bu jaree ay wax lu dul dëgg jaral na ko ko bu jaree agressé jaral nako ko ko bu bëggee saafarawu ci ko xamné mo gëna bëgg alal fuf gën ko jublu adina ndax dana soti motax de nga wolof lim wax garab bu lo sutul du la may ker serigne day xam ci yalla lo xamul ag ci yalla fo agul gis ci yalla lo gisul nga ñew dégg ko sa ndam ngir mu def ko ci yow du wut ne yow nga bon dede waye nim mel ci yalla la lay melal fim ag ci yalla fa lay agale waaye dafa am ci taalibe yi ñoo xam ne daanaka ni sëriñ bi mel dañ koy jombale seen bopp kon loo koy toppee que loo koy toppee bu dee sëriñ bi ni mel doo ko mel sëriñ bi lim xam doo ko xam fi mu àgg doo fa àgg te yow yaay taalibe taalibe ci baatu arab la jóge bu ñuy wax ab taalib ab taalib mooy aji sàkku ji aji sàkku ji nag wax dëgg yàlla bu fekkee teguñ ci loxoom dara kon kay na soppi turam sàkkootul di bu ñu nee muriidu mooy ki nga xam ne dafa namm fan la namm àgg ci boromam bu fekkee dangaa ngaa namm àgg ci yàlla bëgg dund ba dee nag te doo àgg soppil sa tur isil muriidu laa yuridu abada gayra rida rahmaani xaysu xasada taalibe murid piir mooy ki nga xam ne ngërëmal yàllaa ko tax a jóg boo bëggee am ngërëmal yàlla te xamoo yàlla dana sotti koo xamut gisoo ko bëgg koo liggéeyal ba mu gërëm la ndax mën naa ne moo tax ki bëgg sag murit wér faaw daf lay xamal sa borom gis nga xam yàlla lim lay dimbalee mooy da ngay xam ne lii la yàlla bëgg lii la yàlla bañ waaye boo xamul yaa da ngay tolloo la rek yaakaar naa ne njortu naa ne yaakaar ak njort na wóorul li wóor mooy ilmul yaqiin boo xam ne danga koy am sa diggante ak sa borom ba boo defee da leer ne nii la ko yàlla bëggee nii la ko yàlla gërëmee gis nga kiy doxee nii àdduna yëpp buñ maase woon weddi yàlla moom mu gëm yàlla moom la muy wutee ngërëmal yàlla it bu àdduna yëpp wëlbatiku woon di ko ca dingat baaxut du nii moom xam na ne baax na nii la moo tax mu mën a wéet lool ñime wéet lool parce que ki ko wéttali may boromam Seydina Alioune mos naa nekk ci barab benn waaye fekk fa ne ko da ngaa wéet lool mu ne ko ki ma wéttali boo ëllëgee moo may àtte kooku dafay bàyyi xel boromam dafay bàyyi xel digganteem ak boromam lii nag bu ko jaam di dund am na tawféex waaye li fekk daje mat sëriñ motax cheikhul murabbi te moy sëriñ bi nga xam ne moom lañ jàpp ci tariixa li képp lañ ko toppee waaye léeg-léeg nag gàllankoor mën na ci am da ngay japp ne mat nako da ngay japp ne man nako ba lila war lépp nga koy jëm te fekk ne nak manuko mo moo damay wax ñu bari ne léeg-léeg dafa am ñoo dañ lay génnee kër gi du talibé mourid duñ ay mourid ay yalla yalla nangam ak nangam parce que bëggu ngeen bokku kër gi kaddu yi di jóg waye bo waxe ma wax boo waxee ma wax bu yàggee dinañ xam ñaari kàddu yi ban moo ci def boo jàngaleem sëñ Tuubaa nañ ñu wax fan la sëñ Tuubaa jàngale ne sëriñ moom danga koy topp di topp di topp di topp rek moom dara waru ko yow nag dara wàccu la foo ko dégg dalaa leeral ne kii mooy taalibe nii la war a doxee waaye nag kii mooy sëriñ lii la war a def li ma war a am taalibe bu defee li mu war a def ba noppi lan la ci war a tege sëriñ bi def li nga xam ne moom la war a def su boobaa bu ko jaajëf mu wér parce que xamal nako lo xamne munu ne ko wona ñak ndax ko xamul yalla munu jaamu yalla loloy li am pas-pas reuy pass pas-pas mënta mag ba nga ne da nga jaamu yalla niko yalla soxla te wëbëti ku rëré yalla wala de nga Cheikh Moussa dan na wax neena umpale ba nopi ne da ko defal dara Cheikh Moussa du soti mën ne dafa jomb xam bi ngay xam sa borom nak mo lay jappandalal nga ma jaamu yalla niko yalla soxla te xam ko bu wér moo tax dégg nga nee na jaamu yàlla fañ ko fixé yàlla fixé wu ko fa koo ne jaamu yàlla mooy la julli koor azaka aj màkka gis nga yii li koy def jaamu yàlla ci biir la xol su baaxut boo jullee julliwoo xol su baaxul boo wooree wooroo parce que la koy yàq ma nga ca biir te boo demee ci hadiis fekk ko fa yéen saa salaam wax na ci hadiis ne am na koy lekk tey sant ëpp yool koo xam ne ma ngay woor tey muñ lana tax xol bi la bi la ki nga xam ne mënta bàyyi lu ñaaw mënta bàyyi luñ sib yonent bi nee na kii julleegul man lam tanhoo salaatu ani fashaa'il munkar lam yal mina la ilaa boo daan kooku nee na sori yàlla sax la ko julli gi dolli julli nag bu demee bay dolli ni sori yàlla war ngaa xam ne kii julleegul boo ko doon misaal dafa mel ni julli médicament la boo xam ne boo ko jëfandikoo wan ginnaaw lépp loo xam ne safaan la te léeg nga dégg koo xam ne danaan la lu ne mën naa ko waaye damay julli lu mën naa ko def te damay julli te yow julli ngay def da ko war ndéem julli nga waaye julli lañ xamul xam-xam la yëg-yëg la boo xam ne ci biir lay baaxee soo ngay baax ci biti waaye ci biti su baaxu du baax moo tax dégg sëñ Bay Jaxate defar sa xol bi ba sa xol bi leer la rek a moo gën di wut ay néeg ak i sàkket yu fatt taraj ña dëkke woon taaxi kaw tey jëf lu bon ñi ngi tey ci sëg yi ñuy cawi yar foo tollu dégg faraj jëf ju bon foo ko dégg xol bu bon a ko sabab jëf ju baax foo ko dégg xol bu baax ko sabab lay defar xol nag moom la cheikhul murabbi yor mooy ndoxu leeru la ilaha illallah cheikh Moussa lii la joxe moo tax ku saafonteeg moom diir bu gàtt a gàtt lépp loo xam ne safaan la da nga koy séexlu jombale ko sa bopp xam ne yàlla lebal na la loo xam ne mbaax ak njub ak dëgg képp la war leneen loo def lu dul loolu wàcc nga yoon wa moo tax dégg ba mu siyaaree sëñ Tuubaa jox ko addiya dërëm ba nga xam ne taalibe baayam bu ñuy wax baabu alima moo ko joxoon ne ko sama taalibe baay moo la ko jox nee na fajug aajo la bëgg sëñ Tuubaa dana ko tegal ci suuf mu teg ko ci suuf mu ne ko boo demee nee ko nay wax lu baax te di ko def moo tax ku déglu band yi dégg Cheikh Moussa di wax lu bari ne nekk def fajug aajo mi ngi ci wax lu baax ak def lu baax lu gàtt la waaye man yëpp a ngi ci biiram balaa ngaa mën a wax lu baax def ko nag day fekk ñu baaxal la defar la kooku mooy cheikhul bi sëriñ bu mat sëriñ lii la Cheikh Moussa def moo tax kanam-kanam rek nit ku yor njariñam mu fekk si la nit ku yor njariñam mu wuy la te njariñ loolu leen lañ yëg suñu diggante ak Cheikh Moussa daf lay jariñ te du la jariñoo daf lay jariñ te du la jariñoo moo tax sas wi ñu am mooy fas ne ko wane ci ni mel loolu taalibe bu ne war na koo bàyyi xel ana benn mbokk taal dafay wax lu am solo nee na kenn du jaaree ci man di yab Cheikh Moussa ñu bëri dañ koy dégg rek te niñ koy déggee dëppawul ak ni demee kon baax na képp koo xam ne taalibe nga nga fexee dundee ko ni mu ko soxlaa daan na wax ne su may wax dee leen may déglu waaye su may jëf dee leen may parce que nam mel baax lam jëf a baax bu doon niñ mela ak ni ñuy jëfee baax na kon niñ ko wuyu si xam-xamam doy nañu leer gim ñu tàllal doy nañu waaye nag nañ càmbar jikkoom nañ càmbar dundam te wëlbatiku mu doy ñi biir ak biti ñu leer la kook suñ dund ak suñ jikko rek su boobaa yokkute ci biir ak ci biti sant yàlla ci biir ak ci biti su ko defee yàlla doole la in shakkatu la isdan na ko yàlla ñu ko yàlla fayal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. suñuy jaar dañu nekkee SOS Ndiamé mu nekk kuréel gu am solo ànd taxaw mbokk taalibe yi tawal képp ku ci bëgg a barkeelu tamit mun nga jël si numéro SOS 77 729 60 ci turu maam Cheikh Ibrahima Diouf